الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبي الرحمة وكاشف الغمة وشفيع الأمة سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته الأئمة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة bokki jullit yu نكتي yi فسنتكوي في ريومي أكسي بتمريو yi tànn leer ak di ko leerloo muy rajo télévision bu wal fu ngeen mun di nekk ci àdduna bi rek maa ngi leen juróomi baat yi ñu yàlla boole mu gën a tedd gën a sell gën a sakkan doy walis bépp nuyoo te benn nuyoo mënta doy walis ko ma tibbee ko ci sama xol jëmee ko ci seen jëmm yu tedd yu sell muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di jël siwaat ci kartanal yàlla fas yéene sof ak yéen li ma sosoon ak yéen ci seen xadiisu sabaax démb ci waxtu wi bi may teqalikoog yow dëxaloon naa la tere gi ñu suñ boroom tere bërig laaj ndax yëg gi ñu yëg ne bërig laaj dafay waral bërig waral bërig waral dafay waral yokkat ak kañuy waral yokkat ci luñ waral ci yow muy lu baax dafay xëñe yiw moo tax nit bu bëggee noppalu lu ko amalu njariñ bu ko laaj waaye laajal lu la amal njariñ rek li la amalul njariñ nga noppi ca waaye suñu natt ji jamono nit ñu bari dañoo bëgg xóotal taxaw di laaj nit ki naan ko sama kawari bopp yi ñaata la xam sa kawari bopp yi yokku dara ci sa ko wàññiku dara ci sa diine ji laaj sa kawari bopp yeeg sa kawari tànk yeeg say xef demal nga jéem a farataay njàpp ñaata la sunnaay njàpp farataay julli ñaata la sunna ya ñaata la fadail ya muy ngëneel ya ñaata la luy yàq julli ak lu koy defar boo yokkee wala nga wàññi luy saate yooyu yëpp lu jëm koo xam moo ëpp solo te nit ku nekk liñ koy laaj la war a teewal bañ a hittewoo di teewal lu la laajut amul kenn kuy dee ci sa biir bàmmeel ñaari malaaka yooyu ñëw war laa laaj kenn ki tudd kenn xamut ñi ma tuddu kenn ki tudd man bëgguma kenn xam ñi ma tudd ñi lu lool muy nakiir ak munkiir duñ la laaj mukk ñaata ka war a nekk ci sa bopp bi duñ la laaj mukk suppu kànja nuñ koy toggee duñ la laaj mukk yenn laaj yu xóot yi ngay gëstu te la benn njariñ waaye laaj yañ lay laaj luy sa diine kon diine jooja di lislaam war nga koo fexe xam moom nga diine woo lu koy defar lu koy yàq luy sa téere kon sa téere bii di alquran war nga koo xam wala war nga caa xam mag mu day nu yàlla kum bind leetar war ngaa yittewoo ba xam leetar ba mbaa nga xam ca ndax président bu la bindoon ab lettre wala ministre doonte dégguloo français da nga dem seeti ku la ko jàngal ba xam lan la moo ca nekk rawatina nga la foo mën a dem da nga xenu ngi lettre ba liiral ma ko lettre wax ma li ci ne ngay liire ka liiraat ba ba mu gën a leer mën ngaa dem ci kii mu wax la sax nga ne taxaw ma demaat ca kële mën naa am am na lu mu ca bàyyi yàlla lëmm bind la lettre ci téewoo ca dara sayoon ni fu ca kon dañ la laaj luy sa kuy sa fuy sa dañ la laaj kuy sa borom fexe koo xam-xam gu wér dañ la laaj kuy sa yonantu fexe la xam sa yonantu bi xam gu ndax nga mën koo roy ñaari kuy sa yi muy kuy sa borom kuy sa yonantu dañ la laaj fuy sa fuy sa moom benn yoon la muy fuy sa xibla nga ne kaabatal kaabatul musharrafa qiblati ñi doon laa laaj nag luy sa ñaari yoon la luy sa diine luy sa téere su boobaa nag bu fekkee alquran duutoon sa téere perte nga bu lislaam nekkutoon sa diine perte la moo tax kon juróomi laaj yi la ñuy laaj nit ki ëllëg ci biir bàmmeelam yooya nag war ngaa fexe ba xam ko xam gu wér ba bu ëllëgee buñ la laajee not yi ñu lay laaj ci examen bi nga mën a at mi yàlla ñu bëgg amul benn jàngalekat buy jàngale élève am ñu war a dugg ci examen dugg ci seen classe yooyu ñuy defee examen mu ne waaw bala ngeen a def examen bàyyi leen ma xamal leen not yi ñu leen war a laaj ci wàllu kilo liñ leen war a laaj ci wàllu histoire liñ leen war laaj ci wàllu économie liñ leen war laaj ci wàllu social amul benn meetar bu koy def yàlla rek mooy ki baax koo xam ne not yi ñi war a laaj xamal nañu ko ba pare te demaguñ ci examen la kon nag loolu lim ci jublu yépp mooy bëgg ñu at mi waaye gis nga ko seytaane moom bañ bañ ñu at mi juróom yi ñu war a laaj yépp dañ ñu ko fi ñukk hitteewuñ jéem koo xam dem di jéem a hitteewoo luñ dul laaj ba loola yàqal ñu ñi war a xam li ñuy laaj pertement dikk na juróom yi dong lañ lay laaj luy sa kuy sa kuy sa ñaar la kuy sa yonantu kuy sa borom luy sa ñaar la luy sa diine luy sa téere fuy sa benn la mooy fuy sa xibla yi ci des yëpp yaa ko togg sa bopp di ca déema sonn waaye du duñ lay laaj kon nag nañ ci teewoo bañ a sonn ca ya ca def bañ alkale gi daloon xeet yañ jiitu woon dal ci waxoon naa la ko xeeti yonentu yàlla Isa wa nekkoon nañ ci juróom yi lañ leen war a laaj ñu nekk fa naan ko ñun daal taabal bu def ñam pour ñu mën koo lekk ñun daal lañ lay laaj ay siisi siisa lañ woon lekk rek lañ jëm ne ko anzil alayna maa'idatan mina samaa'i li ci ne suñu yoon newu ci moom daal taabal bu def ñam nga indil ñu ko ñu lekk ba suur suñ xel door dal ñu xam ne yàlla la yónni moo ñu teree nelaw li ci des yëpp xamuñ ci soxla moom la alquran ne qala al xawaariyuuna yaa isa bni maryama ya isa bna maryama hal yastatiu rabbuka an yunazila alayna maidata min asamaai bam leen ko waxee rek qaalat taqullaha in kuntum muminin qalu nuridu an nakula minha wa qulubuna وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال xawaari yu na yi gënoon a jege yonentu yàlla Isa ne yow Isa mi doomi Maryama moom rek ci yonent yi lañ ciy dàkkantalee yaayam ak Yunus Yunus ibnu Matee Isa ibnu Maryama du ko waral moom fawul am baay yaay rek la am Yunus ibnu Matee nag am baay am yaay waaye askane ko ca wàllu yaay jaa gën a nopp wàllu baay ja su ko defee loolu danay am fii ci suñu réew mi ay kilifa yu mag yu ñuy askane ko seeni yaay mu ne waaw ñu ne ko waaw hal yastatiu rabbuka an yunzila alayna maa'idatan mina samaai ndax sa borom moom man na wàcceel ñu benn taabul boo xam ne day def ñam la ca war a nekk yëpp nekk ca mu bàyyi ko ci asamaan mooy firi mu njëkk mi bu ñaareel bi mooy hal yastatiu rabbuka an yunzila alayna maa'idatan mina samaa'i ndax yow jaral nga sa borom jaral nga ko xam nañ ne mën na ko ndax yow jaral nga ko ko mu wàcceel ñu benn taabul buy def ñam mu bàyyi ko ci asamaan Isa xam ne li ñuy laaj bu sottee du baax ci ñoom ndax dana leen jox ay conditions yoo xam ne buñ ko remplir mu xalak leen moo tax may yonent yàlla Isa asule ne qaala taqullaha in kuntum muminina waaye waaye ragal leen yàlla bu leen laajee ci miracle amul lenn xeet wa Musa laaj seen ab yonantu miracle mu indil leen ko lu dul ba weddi nañ ko te buñ ko weddee alku qaalu nuridu an nakula minha wa tatma inna qulubuna yow daal dañ lay xamal ne ñun laa gën a bëgg gëm rek suñ gëm mënul gëm mënul dollee ko ci yow sax lu dul da ñoo ñam ñu lekk ko xam ne lii ci yàlla la bàyyee ko lekk rek lañ gëm ah dañ ko waxee nag yonent yàlla Iisaa xam ne caaxaan jeex na qaala isa bnu maryama allahumma rabbana ansil alayna maidatan min alsamaai maidatan min alsamaai takunu lana iidan li awalina wa axirina wa ayatan minka warzuqna wa anta xayru raziqina ne ah waay yow sama borom maa ngi lay ñaan yow sama borom wàcceel waral ñu benn taabalum ñam bu bàyyi ko ci asamaan boo xam ne bu ñëwee dana nekk feet ci ñun ñii nga wàcceeku ci ñun dana nekk feet ci nit ñi ñu mujj bisab dimanche la wàccoon mooy feetu nasaraan ci jamonoy Isa mooy feetu yi ci gannaaw yàlla Isa ba ba àdduna bi tukki waaye waaye yow yàlla nang la koy ñaan man nga ko te jaral naa la ko kon nag warsuqnaa wa anta xayru raasiqiina yaay ki wërsëgal ñu waay te yaay ki gën ci way wërsëgal ñu yàlla ne ko danaa la wan ne man naa ko danaa la wan ne jaral nga ma ko moo tax sama borom tafal ca ne qaala allahu inni munazzilu alaykum danaa ko wàccee de waaye nag fa man yakfur baadu minkum ah su ma ko wàccee de naan lay seedeel ni ku ko weddi ci yéen fa inni uazibuhu azaban la uazibuhu ahadan min alalamina wallahi danaa ko mbugal mbugal moo xam ne musuma ko mbugal kenn ci kaw suuf seeti ko ca suratu maida aaya cent dix jëm ba cent aaya cent douze ñu toog rek Ibnu Abbas ay nettali yàlla wàccee benn taabul bu gudd boole yaatu mu baxee ko ci asamaan malaaka ñoo ko indi xenu ko juróom-ñaari jën ñoo nekkoon ci taabul ba ak juróom-ñaari mburu li lañ gëm lekk kat lañ ay siise siise lañ ñu indil leen juróom-ñaari jën mu tolloog juróom-ñaari asamaan ak juróom-ñaari suuf ak juróom-ñaari fan ci semaine bi mu nekk symbole ne semaine bi yëpp muy juróom-ñaari fan yi seen ñu ñëw man ngeen di ca lekk bu soppeeku jërul dugal ci frigidaire du yàqu ñi boole ko juróom-ñaari mburu waaye nag jën yooya amut yax lépp yàpp jën la woo xam ne kéemaanal yàlla la haa mu ne nag yéen ñu njëkk ak ñu mujj ñëpp mën ngeen cee lekk su ko defee nag moo waral maa yi datu ba ñëw ba mu wàccee ni conditionné leen ne leen nag bu leen ca denc dara yéen siise siise yi bu leen ci siise ñu dul siise siise bu ngeen ca siise sante rek alku waaye ñaareel bi timit bu leen ca denc dara lekk leen ba suur rek jug wan ko gannaaw ñaari condition yi lañ leen indi munuñ ko rempli siise siise di jël siise ñu duhul siise siise ñenn ña di dencal seeni doom yàlla kay soppi leen golo ak i mbaam kuux ñu xal ko moo taxoon Eh, génn góor ci bani ajlaana amaar ibnu yaasir dafa ne ko ndax yéen xam ngeen mbiram maay dafa bi wàccee woon ci banu israel lu ko waral ak fu mujj mu ne ko déeréet mu ne laajoon nañu ay saa taabalu ñam wu ñuy lekk ji ay jën nekk ca du jeex mukk lekkal ba suur rek wane gannaaw mbir ma mel nan melaatoon waaye ñu ne leen ko denc bu leen ca xorante bu leen ca ñu mujj ndàmb ko denc ko di ca siisewante yàlla la leen mu ne yéen arab yi yonent bi dafa leen a fekkoon ngeen ay sàmm topp gëlëm yi di sàmmi ak yaay gàtt yàlla yónni ab yonent boo xam ne yéen xam ngeen askanam xam ngeen ndaaxaayam bu leen ko toppee yéenay gën a kawe ñu dul yéen moom tamit nag tere na leen ngeen ndàmb wuru sa xaalis di ko def ci seen compte yi comme ni banu Israël yi leen tere woon ñu jël jën wa di ko ndàmb di ko denc seen frigidaire ya dañ ko defee xal ku nañ yéen tamit bu ngeen fi nekkee jël seen alal yi di ko def ci seen compte banque yi du ngeen ci dimbale seen mbokk yi du ngeen ci dimbale néew ci doole yàlla xalak leen yàlla wax na ko walladina yaknisuna zahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillahi fa bashirhum bi azabin alim yawma yuxma alayha fi naari jahannama fatukwaa biha jibaahuhum wa junuubuhum wa zuhuruhum haadaa maa kanastum li anfusikum fazuuquu maa kuntum taknisuuna jàng ñaan ko waaye gis nga ko xeetam yi bi ñëwee xiir ci alal jël alal di ko korkoral doo ca lekk doo ca lele dee rek dem safara doo ca génnee asaka ba tax na ji jamono milliardaire ku la gën a nekk milliardaire moo la dàq dee deelu milliardaire yu dee deelu rek lañ bëri la ci yi jamono waaye li ci ëpp ci milliardaire yi santatuñu yàlla li ci ëpp defuñu ngir yàlla li ci ëpp tamit ci ñoom génneewuñ asaka dem ci ay téléthon yi di joxe seen alal di baatare ñu leen di tudd ci télévision yi moo leen gënal génne asaka joo xam ne dafa war ci seen alal su boobaa nag la daloon banu israila ke seen jën wa mooy mujj maanaam wala ke jën ya mooy mujj dal tabaarakallaahu ñi nga xam ne dañu xiir ci alal di ko korkoral duñ ca lekk duñ ca lele duñ ca dimbale néew ji doole ya ba xëy dee dugg ci buntab jal ko jël ko yombut te yàgg naa leen ko wax jal ko jël ko yombut jal ko ñi jal ñëw jël li nga jaloon moo gën a bari rawatina buñ toll ci jamono joo xam ne gudd fan dafa xew toll nañ ci jamono joo xam ne wér dafa xew nañ ci jamono joo xam ne jàmm ju sax ju yaatu ju matale dafa xew kenn ku ci nekk ñett yi safaanam ba rek ngay dudd wére di gàtt fan bëri jafe-jafe atul problème ci sa bopp mbaa ci sa njaboot waaye am xel mu dal dund ci tranquillité ci ji jamono jafe na lool yaa ngeeg naqar ak jafe-jafe yu la teree nelaw yaa ngeeg métit yu la teree nelaw yaa ngeeg jaaxle ay jàq yoo xam ne soo ngi tuli bi dum sedd sedd dafa mel ni yow yaa ngi ci tàngoor ci jamono la ñuy dund ku toll ci jamono jooja nag da ngay kon gis nga ñi wax dëgg yàlla ñu ngi doon añ di reer di ndékki amuñ benn problème mu lekk amuñ dara lu ñuy laaj lu dul ne ko dañoo bëgg lekk indil ñu taabul bu def ñam ñi mën koo tiim di lekk te mosuñoo lu mu leen jëriñ dara mujj nañ weddi ko ah, alku nañ yàlla soppi leen golo ju dee dem safar kon lii lu leen ko yóbboo laaj lu leen amal lu leen amalut njariñ bañ fi laaj lu leen amal njariñ kon mu dugal la ma la waxoon sa bopp aaya ba laa tasalu an asiyaa ja ma la waxoon ah in tubda lakum tasukum laa tasalu an asiyaa in tubda lakum tasukum li dal nitu yonentu yàlla Isaa yi moo dal nitu yonentu yàlla Muusaa yi Muusaa dañ doon jaamu aw yëkk Muusaa Saamiri yu moo ko xettoon waxoon nañ la ko ci tafsir ba jëlee woon ko ci or ak wurus wi nit yonent yàlla Muusaa yi xaboon nit yi Firawna yi avant ñu koy delloo ñu jéjjee ñoom jéjjee indiwaale ko mu dajale ko tànkab Jibril boobu muy jeexitalu tànk façon wa mu daan gis boo daan ñëw di ko nàmpal ci fu mu dëgg bu fas wa teggee rek mu sax ñax mu tibb suuf sa denc ko jël maanaam wurus waag or ba tëgg ca aw melow yëkk jël jeexitalu suufu ndëggu tànka pasu jibril waawa sotti ko maanaam nag wa ban ko ko sottotee rek ca maanaam mu mujj mu ne haza ilaahukum wa ilaahu Muusa fa nasiya gaa yi sax di ko jaamu mu tere leen munul ca tus sax na ñeen fukki fan ñu ne di ko jaamu moo tax boo leen waxee ñu ne lan tamasana naaru ilaa ayaaman maaduda ñun daal fan yan jaamu woon njëkk wa rek fan yooye la dugg safara léegi nag bi Moussa ñëwee sama borom ne ko yaa ngi fii di hittewoo lu defar sa yi waaye nag xam na ku la gannaawu sa gannaawu yàq na sa liggéey bi yépp muy Moussa Samiri ci la dem jëflanteeg moom gannaaw bi mu jëlee yëkk wattat ko ba mu mokk jàllar bi ko jëri ko ci géej gi ñu naan ko gën a sopp jaamu yëkk wa usribu fi qulubihim al-ajla la alquran wax waaye mu jël Muusa Saamiri ñaan ko yàlla toroxal ko mu mujj di dox ci àll bi di taxawaalu ànd ak njanaaw yi weñ sax bu ko dalee yaram wa ma ngay métti dafa mel ni lu ñu feer moo tax liggéeyu mag ñi bëri na ci luñ liggéeyoon muy lu baax ñu yore jikkoy Moussa Samir yu feeñ nañ seen gannaaw yàq ca lu bëri ñu bëri tamit topp leen ca loola waaye waat naa ci yàlla bu mag ñi dekki xatoon danañ jëflanteeg ñooña yàq ci seen liggéeyu lu bëri ñu yonentu yàlla Moussa jëflanteeg Moussa Samir yu ba mu bëggee yàq liggéeyam ba ca gannaawam kon loolu ma wax ñëpp ci teg seen bët boo xoolee gis ko boo dégloo dégg ko boo làmbee daj ko nekk fi rek di mbubboo mag ñi di leen dundee waaye la ñuy ni mbubboo yëpp pare ko ñoom ñu sol la ndax la ñuy digle defoo ca tuf la ñu tere bàyyiwoo ca dara jaaree ca di ca nax ay xale di ca nax ay jigéen ñu xamul kilifa di ca nax ay mag ñu bëgg ku leen mosal ñu topp la di la jay yàlla na barke bi dolleeku fekk musiba rek mu ngay dund waaye yëgoo ko su ko defee kon nag loolu tey mooy moo ñu dal mooy feebar bi nga xam ne dafa matale ba ko déglu dégg ko di mbubboo mag ñi rek di yàq di ko di di ca dund rek dundaloo ca dara amul dara loo taxawal lislaam loo ko taxawal def ko ay entreprise di ko dundee rek waaye fekk dundaloo ca dara lu ca nekk nag nga mbubboo ko ci ay mag kenn ñu ma wut laa joxoñati su ko defee buy xoote jotee nga feeñ bu joxee xaddee jotee nga joxe su ko defee feeñ su ko defee nag lan cay gañe bu dee ay milliards yow ay millions nga cay joxe kenn ñu ma wut laa dut baaraam lu fi yàqu lii fi yàqu de te ku ne gis na ko ku ne dégg na ko de kenn mënu ca tóos loolu moo dal mu yonentu yàlla Muusaa ci Moussa Samiri moom nag sama borom ne ko tànnal ci sa nit ñi ñi nga gën a wóolu ci sell su ko defee ñu ñëw tuubal ñi doon jaamu yëkk wa ba ñu ñëwee mu mel ni aw niir moo leen muuru xar-xaram ak Moussa baa ngay nas na fi ci rafetaay ba kenn mënu koo xool ma ngay wax ak suñ borom ma ngay dégg kàddu ga waaye mu ne déggee wu ko nopp sama jëmm ji lépp dégg kàddu ga mu neex façon neexaay goo xam ne ba mu ca bàyyee ko lu mat ñeent fukki fan bu déggee waxu nit rek dafay mujj xaxtandiku jàllandiku loocu waccu bu ma comparé kàddu yàlla gu neex googa ma ciy bànneexal sama jëmm ji lépp bu ma ko comparé kàddu nit dafay naqari ba kenn xamul lu muy niw yonentu yàlla Muusa nag nekk ca loola wax di muy wax ak suma borom juróom-ñaar fukk ñim gënoon a hóolu ñoom taxaw ne ko lan nu'mina laka xatta nara laaha jëhratan ñun daal duñu la dëggal mukk lu dul dañoo gis yàlla ci janoo bu ko defee rek ñu door laa mën a dëggal suñ ko waxoon sax ngir sopp yàlla ci seen ñaan gi du leen wàññi dara waaye dañ koo wax ngir ak diiŋat aa yàlla xalak leen bañ ko waxee rek arina la jëhratan fa axasahum saaiqatu ku ne jàng na ko ñi alku dee yonentu yàlla Muusaa ne man su ma àndoo nag ñoom ñii juróom-ñaar fukk ma ñi bi man kenn ñi lu may wax rabbi law shita ahlaktahum min qablu wa iyaaya yow yàlla bu la neexoon nga xalak ma maa ngi ñoom ñëpp lu njëkk lii te kon dara amuñ ci problème waye bo len alagé man kenn ma mucci suma ñibé sax man mucci ma ngi lay ñaan yow yalla yalla nga ma dimbalé len da eh, dékki fofa nak dañ leen ray ray go xamné ray ak jéppi leen leen waaye seen diir ba jeexagutoon moo waral bi yonent yàlla Moussa ñaanee rek ñu dekkee dañu dekkee nag ñu mujj tuub ci la wax ne inna hudna ilayka ñu de dellu nañ jëm ci yow yow yàlla ci lañ leen tuddee tuddee leen nag yahuud yi baatu maanaam hut naa ci la yahuud xare ñu tuddee leen nag yahuud yi ñu ñëwaat nag gannaaw bi Moussa lentaloo sàkk ñu delloo seen rooxu ya ñu tuubal banu Israayil ñu doon jaamu yëkku wa mu dana ñetti de tuub ga léegi daal nangu naa ko waaye ñu jaamutoon yëkku wa ñooy jël seen seeni seeni jaaf yi di rey ñu doon jaamu yëkku wa benn bis ñuy rey rey nañ lu ëpp juróom-ñaar fukki junne nit mu jigéen Moussa yuuxu ne yow yàlla sama xeet wi mu ngi jeex yaa ci la ko nag sama borom ne ko ña ca dee ay suhadaawu lañ ñu ci des sa rey buñ leen ci ñu doon jaamu yëkk wi ah naa leen bàkkaar booba moo tax bañ laajee tuub ga rek mu ne tuub ga mooy ngeen rey seen bopp mooy uqutulu anfusakum rey leen seen bopp de mooy seen ak tuub de loolu mooy fa tuubu ila baarikum fa qutulu anfusakum loolu mooy nekk seen ak tuub kon lu leen yóbboo musiba mi yépp alkande gi ñu soppi leen golo soppi leen i mbaam xuux ñëpp ña jaamu wutoon yëkk wa rey ña doon jaamu yëkk wa bala ca dee ay junne junne junne nit lañ ñoo xam ne xamuñ lu ñu toll ba ba yonent yàlla Moussa ñaan yàlla dakkal mbir ya lu leen ko yóbboo arina laa jëxëratan mooy laaj lu leen amalul njariñ bàyyi fi li leen xamal njariñ loolu moo yóbbu ñu ko yonentu yàlla Muusaa ya ca loola mujj nañ alku jëlal ñu ko yonentu yàlla saalixu ya yonentu yàlla saalixu la yàlla yónni woon ca nitam ña moom la alquraan ne wa ila samuda axaahum saalihan ba mu ñëwee mu ne يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها سورة هود آية شيخ بملينكو واخي نه يين سما نيت ني نيتال لين سن بوروم امو لين جن يالا جودو موم مو لين سوفي سي سوف ساكو نين دوندال ادم سي لا سوفو ku ne jàng na ko waaye tamit ñun ñi tamit ci suuf lañ sosoo ndax matière bi nit euh, euh, dund sosoo muy mën niyu soo ko dàqee mën niyu lu ñu sosoo ci gàncax ceeb bi nga xam ne moom la waajur yi dugub jeeg mboq meeg fur wi looloo soqeeku formé bu nekk di mën niyu loolu tamit boo ko dàqee muy fur wi ak dugub yaag euh, mboq ceeb ba mu ngi soqeekoo ci suuf kon amul kenn ku génn suuf kullukum min adam wa adam min turab waye nak bu ci waasita bi waye kullukum min turab yen ñep buñ ko xolé haqiqatan ci suuf rek ñen baye ko minha khalaqnakum wa fiha nuidukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra yen ñep ko jàng kon nak bam leen waxe li dañ leen andi ci suuf ci ñu sosoo leen bëgg ngeen sakku ko dundal doxal ko yii ngeen tabax dëkkee lii ngeen bay te ngeen fii jaamu yàlla sellal suuf si ñu ne ko daal duñ la mën a gëm boo bëggee ñu gëm la ëllëg ñu miracle faati bi ayatin in kunta min as-saadiqina soara cinquante quatre ah ba ñu ko waxee ñu ne ko miracle ba lu ngeen bëgg ñu ne ko montagne bi nga toog bi ñu wooyee lañ bëgg montagne bi jur gëlëm su paree gëléem googa mu jur na juraat doom bi mel ni moom toll ni moom ñoo dof dañoo bëgg maanaam jamaat génnee xayawaan mu ne yàlla de inna la àlla kulli shay'in qadir yàlla mën na lépp kartanam nga amut limite ci la yonentu yàlla insaan ne waaw waaw mën naa koo ñaan de te jaral naa yàlla mu defal ma ko ci la ñaan ñu toog rek gis montagne bay wonku comme jigéen guy am doom xubbeeku tabaarakallaahu rek ponkalam jëleen génne ca ponkalam ko kooku génne ca juraat doom ju toll ni moom mu ne xam ngeen problème nag naaqatallaahi wa suqyaaha jëleen gi nag dafay naan comme yéen li ngeen di naanee naan gi nag mooy da ngeen di haylante léegi daal li xew tey yéen sëlëg moom bu altina jotee daal yéen jël leen ndox mi ci dëkk bi yëpp ngeen naan sangu fóot raxas seeni bool lu ngeen bëgg a def ngeen def ko waaye bu talaata jotee nag kenn du sangu kenn du naan kenn du fóot kenn du raxas bool bu àllarba jotee ngeen door a defaat loola bu bu alxames jotee jëleen gi moome wax na leen ko laa sirbun wala kum sirbu yow maalum maanaam yéenay séddoo ndox mi tay yéen sëllëg moom mujj gi ñu nekk ca loola dëkk ba ñàkk ndox comme actuellement jamono ji ñuy dund boo seetaan ci télévision yi gaa yaa ngi gàddu seen bidon yi jël sareet yi takk ko ca ay fani fana ngi nii mënuñoo am ndox ngir ak sonn ndox bi bu feeñoon ca facture ba ñu ne alhamdulilah waaye bu facture ba ñëwee gën a yokk rek dara nga mënut maa lay jaay waaye li ma lay jaay tamit maay ñëw note ko ne lii sama yoon nekku ci su ko bu suma ñëwee tamit ne la xas naa ko bind juum naa juumuma noonu la demee demee wut noona da may fay ba pare ñu door a lijjanti xam nga ni loolu xaq ju rëy rëy rëy moom daal lépp loo lakk ci courant bi maa koy ñëw facturé ko du ma la woo ne kaay seede ko du wax ne kaay ñëw nga fekkee ko la lama lay jaay tamit damay yow daal indi naa la contour rek maa xam prix daal na muy doxee waaye su fekkoon dañuy signé ni la lii la bu ma demee tamit bay relevé da ngaa war a ñëw toog ñu seet fañ ñu xool tamit fiñ tollu tey léegi ci laa la koy jaayee kon nag lii la da nga ko tabax kër ba xëy mabbu kër ga wala ba xëy tuxu mos sa ca ndox ma ca courant ba dañuy jóorloo daal tabaarakallaahu yi xëy rek andil la facture bi nga ne lii ak li ma lakkoon bële du benn ñu ñëw seet sa kër gi am siit nangam ak nangam nga gas toj say karo daa kenn mën ta tere nga fay facture boobu ndaw lu métti ñàkk ndox maa ngi nii métti nit ñaa ngi daw waaye dara du tudd feeñ ca facture yi de su ko defee kon nag euh, tabaarakallaahu ndox ma nag ñàkk ci ñoom tey ba mel ni actuellement li ñuy dund ñu ne leen ñun de ginañ gi la nañu benn ngorokat ñëw foo fekk ngorokat boo xam ne dafa matut di wut lu muy mottalikoo dafay jaay nguur benn muy ngorokat bu ñaaw di mottalikoo taar wala muy ngorokat boo xam ne poos ya diisut muy mottalikoo am naa dara di fay di gàddu téléphone yu dul jeex yu yu bëri wane ne man ku lix laa fekk li muy wane niwut ci moom benn waa ji bon ñu ngi tuddee xudar du dugut ci yoon ñëw di ca dëkk ba ñu ne ko suñ gëléem gi la jël nañu moom daal bu ayee kenn du sangu kenn du naan kenn du fóot mu ne leen man nii mën naa koo ray la def lam def rek ànd ci ak ñu xamut kilifa ñu ñu tërlu gëléem ga dóor ko gëléem nga ŋaax doom ja moom daw dugg ca doj wa yaayam génne woon gëléem nga ŋaax naafaat naafaat door a dee mu ñetti yoon ñëw ci yonante yàlla saalihu ne ko ah sa gëléem gi nga xam ne yàllaa ñu wax ne naaqatallaahi wa suqyaaha rey nañ ko de mu a da ngeen koy rey ñaata yoon la ŋaax ñu ne ko ñetti yoon mu ne ñetti fan moo leen ci defe kenn mënu ci dara amul sëriñ bu ko mën a ñaan fan bu njëkk bi ku xool sa morom ne ko waaw yow sa xar-xaram bi ak a soon mu ne ak yow di ba jant bi sax gannaaw ëllëg sa ku xool sa morom ne ko waaw yow sa xar-xaram bi dafa xonq di xanaa da ngay mu ne ak yow ni ma mel nga mel yaa may gis sa gisuma la rek ni ma gisee laa la gisee kon nag bu ma fi xulleeti ah juróomi ñetteelu fan ba nag ku gis sa morom ne ko sa xar-xaram baa ngi ñuul mu ne ak yow moom daal bay ngoon di jot ak rek jibril xaacu ñoom ñëpp ñu dee moom la alquran ne mun leen naaqatalaay wa suqyaaha fa kasabu fa aqaruha فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فطواها فلا يخاف عقباها يوم يطلع يقولون كو يبو آه موي لاج لولن امل نجارين باهيت لولن امل نجارين موي فاتي بايات ان كنت من الصادقين لولن لنا امل نجارين جري مانام مونتاج بو جور جينن لولن لاي جارين لوي نجارين لا توس وايي جيس نكو بان كو توبي فو ني مودي نيوم نيب مودي نان الكو كون نانيي لاج جروم يي ньо امل نجارين suñu diine suñu borom suñu yonantu suñu téere su ko defee ak suñu xibla waxtu yu jot na daal laajteel fan la xibla bi jublu ndax nga mën a xam nooy jullee julli gi jot na xamal farata yaag sunna yaag ngëneel ya ba lépp rafet nga door a julli imaamu xusni ku tàng la mu ne boo jullee woon ba pare nga sëlmal ñu laaj la lu cay farata lu cay sunna lu cay ngëneel mënoo ko farañ fànce même bu julli ga baaxee yàqu na waaye borom xam-xam yu bari ànduñ ci ak moom ñu ne ak kay aji julli ji daal bu jëlee julleem ga jëlee ko ci meloo borom xam-xam royee ko ci gis na muy jullee mu jël ko copier ko jullee noona doonte ba mu jullee ba pare mënta ràññale farata yeeg sunna yeeg ngëneel ya tamit julli ga moom baax na ndax yonent ne woon sallu kama raaytumuni usalli wax jooja nag moo gën a xayat waaye waxi imaamu Awfi ji buñ ko xattee woon tey fii si suñ Sénégal ak fu dul Sénégal téeméeri jullit ñoo jël juróom-ñett fukk ya wala juróom-ñeent fukk ya waat naa ci yàlla xamuñ farataay julleeg sunna yaat ngëneelu yaat yëpp te nag bu boo leen laajee dina ay intellectuel lañ boo leen tey laajoon ci wàllu football billaahi buñ ca waxee rek nga daanu dañ ca wax ko xam histoire baax football bi fi mu soqee ko réew mi moo ci gën a yëkkatiku réew numéro 4 moo man ci nangam mbooleem maanaam meilleur buteur bi ci ko jël ren ci année bi yëpp ci ci bi diw la nangam ni bii la dugal dikk tegu ci moom am na nangam ni bii waa kii nag moom mooy meilleur défense ku la ko laaj te loolu lépp doo dee ñu laaj la ko waaye wàllu woowa yëpp sa xam-xam màcc na ca lu xale tuuti tuuti boo ko laajee nag ci wàllu bëri nga ne ci la xam-xamam gën a màcc ci nga laajoon ci football kat ni ko xamee ñi la xamee bëri balaa komba baa ñëw luñ sa xiraat waaw làmb ji nekk ci suñ kanam nag noo ko gisee mu ne ah kii daal li ko ci mën a génnee na cokkaas rek xaar ko mais bu mu ko song de bu ko songee rek perte kii ne ko noonoo man li ma gis na ko teel a song nangam ak nangam waa ji mënul mën na mën na bëri mais mënul dóor kii na déere dóor la man mais mënul bëri ñu wax caa wax wax ba waaye boo laajoo laajoon yi leen jege farataay julli tuut lañ ci xamul kon lu muy jariñ demeet nga laaj ko ci mbiram oto bu la ca waxee bii a gën bii nangam ak nangam nangami kilomètre lay daw par heure nangam nangam mën nga koo dawal door koo vidé usine sàngam a gën dana ca nekk wax a wax a ba xotteeku nga door a dugg ak moom moom ci profit bi bu ca waxee rek nga daanu bu la tegalee analyse am rek nga xéebu nangam ak nangam mënta ñàkk a def nangam foog mu def nii lu ko mooy day perte ndax mënta ñàkk a seey warutoon a seey lu ciy sa yoon tey seey lañ koy fay fayuñ la ko nangam ak ka seey sa yoon nuwu ci lu ciy sa yoon demal nga toppatoo sa mbiri diine ji kon suñ suñu réew mi loolu rekk ko yàq suñu Abdullah Hakim la woon mu ne suñu réew bi ñaar a ko yàq kii waxta la muy wax ci xamut ca dara waaye kenn mënu ko noppiloo mu ne ak kii waxte la muy wax xam na ca dara mais lam xamoon jeex na mu continuer wax rek mu ne lu yàq ci réew mi ñaar yi ko yàq te ñaar yi ñoo fees ci réew mi di wax te wax xamoo dara ab sénégalais moom jomb naa wax xaw ma boo fi nekkoon sax di laaj yoon nga koy laaj waa ji xamul yoon wi dafa lay gën a riiral rek non mën ngaa def ni boo demee ñaari ko ñeent rek après nga laaj da nga fekk ñu toog foofa comme yow dama lay laaj xamoo te nga ne ma xaw ma waaye da lay gën a riiral rek sénégalais ñaareel jomb naa wax xaw ma xaw ma moom jomb nañ ko wax koo ca wax dina jéem a commentaire nangam ak nangam ba dugal la ci loo xam ne doo ci génn ti mukk ba ba ngay dee te fekk yonent bi doon nisnal mi laa addi genn wàll xam-xam mooy xaw soo nangoo ne xaw ma rek am nga genn wàll xam-xam dool dolli la xam rek nga boole ko sa xaw ma jooju daal li mu soppeeku xam wax ju xóot la te joo am solo la kon laaj lu la amalut njariñ bàyyi fi li amal njariñ amul benn solo dafa am loo xam ne jullit bu nekk moom maanaam mooy sa maanaam priorité moom nga war a njëkk a jiital lu jar a baxi la la nga war a njëkk a jiital mooy wéetal ci sa borom kennal yàlla ci sa xol bi ba loola wér muy taxihu imaan yi da jàngoon ca lax dëng lu jar a xam lu bàyyi xel la gannaaw si nag su ma maarifatu maa boobu nag mooy ñaareel ba mooy fexe ba xam luy xéwénal diineem jooju ca julli yaag laab gaag attee ca aju doora nag di yéeg par escalier waaye ñun dañuy ñëw dem ko escalier ba njëkk ba gën a kawe foo fay boo fa bàyyi ko daanu rek kon loo gis baas la commencement bi rek di gën di yéeg di gën di yéeg di gën di di ko sone la waaye nag soo ne damaa bëgg a yéeg waaye du ma départ ci premier escalier daanu ngay def loolu moo ñu yàqal lu bari nekk fi di gëstuwaay tur non boo seetee tur wi boo ko àndadee nangam la lay jox non tur wi nangam la am xaw yu la moom lay tolloog boo ko xoolee maanaam mi ngi tolloog euh, fukki yoon ak ñaar euh, maanaam safasul ci basmala wala mi ngi tolloog nangam ak nangam saf tawiq te yooyu yëpp ngay gëstu yow sa farataay julli rafetagul lu mu lay jariñ sa farataay njàpp rafetagul lu mu lay jariñ demal nga commencé ca commencement ba di yéeg di yéeg di yéeg di yéeg par nànk ba yegg fa nga war a yegg waaye yëpp la nga war a xam muy lu jiitu bu jiitu jiituwut loo ca mën a teg tamit teglante bu jubut la teglante nag bu jubut ala kulli xaal ba ca kaw ay njëkk a daanu yóbbuwaale yi ci suuf yëpp kon dañuy commencé ca commencement ba lu la yàlla bëgg lépp lu ñu amalul njariñ nañ ca noppi bañ koo gëstu gis nga yàlla nag ni muy waxee moo lay daane xoolal bi mu waxee ne laa tasalu an asiyaa in tudda lakum tasukum ba mu demee avant laaya ja di daanu mu ne li ngeen bu leen laaj ay mbir yoo xam ne su ngeen ko laajee buñ leen ko firee rek mu métti leen te nag bu ngeen laajee tombeek alquran di wàcc rek فوق ما يا اي والله لا تفعلوا عن اشياء ان تبد لكم تفوكم وان تفعلوا عنها حين ينزل القران هي ما نان تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم لم تك قد سالها قوم من قبلكم قد سالها قوم من قبلكم لا وايي وخوت ما نان قد سال عنها لله kon duñ benn saala anhu ak saaltuhu duñ benn boo ne maanaam xad saalaha qawmun min qablikum loolu mooy laaj xeet ya ñu jiitu woon te mooy laajuñ laajuñu mbir ya mais meloo mbir lañ doon laaj waaye boo nag xad saala anha mooy su boobaa yow laajoo jëmmi mbir ya mais laajoo maanaam jëmmi mbir ya mais meloo ngay laaj kon duñ benn laaj asiyaaya ak laaj melow asiyaaya duñ benn yaram dafa xaw a naqaree dégg ngir ak sew woon laaj naa waa ji gëléem ji maanaam daal sa'altuhu naaqatan laaj naa ko gëléem bokkut ak boo ne woon sa'altuhu an ndax boo ne sa'altuhu naaqatan mooy jëmmi gëléem gi nga ko laaj waaye boo ne sa'altuhu an nelaw gëléem nga ko laaj wax yàlla moo tax langu arab moom rek ci la alquran mën ñëw wàcc moo ko xattan langu sakkan la looloo waral nag ñoom xadd saalaha qawmun ji ñoom laajuñu nelawu mbir yi waaye dañoo laaj mbir ma ci boppam moo tax waxut xat saala anha boo ne woon xat saala anha lillaahi dañoo laaj nelawu mbir ya loolu du leen wàññi dara waaye gaa yi woon nag xat saalaha qawmin qablikum mooy dañoo laaj jëmmi mbir ma moo tax ñu mu jaxal ko kon nag xad saalaha qawmin min qablikum damir jooja tamit la laaj dafay dellu ca nit ña jiitu woon xeetu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ca mbir yañ doon laaj waaye du wutoon maanaam eh, delluwut ci xeetu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax xeetu yonumtu ya jiitu woon yonumtu bi ci nitu yonumtu yàlla Moussa yaag Isa jëmmi mbir ma la ñuy laaj waaye laajuñ melaw mbir ma waaye xeetu yonantu bi nag moom dañuy laaj melaw mbir ma moo tax maanaam wa aqwaamul anbiya alladina sabaqu nabiya qad saalu min anbiyaihim an yaatu lahum bil asiya bil asiya yi nafsihi bil asiya yi nafsiha walam yasalu an sifatiha kon loolu moo leen alak mooy nit ñi Musaa déggoo ñu ne arina laaha jahratan yàlla jëmam ji lañ bëgg a jàkkaarloo carrément loola kon problème lay indi moo tax kon demir ja dafa dellu ci asiya yañ doon laaj waaye delluwut ci meloo mbir ya bu ca dellu woon rek dafay dafay dafay dafay euh, dafay dellu ci xeetu yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi su ko defee kon nag moo tax yonentu bi xeetam wi laaj nañ ko miraakal gune nanguwul leen cee topp ndax yëg na ne bu leen ci toppoon ñi alku nitam ñi ñëw nañ ne ko dañoo bëggoon sa borom defal ñu safaa doj woowu muy wurus yàlla mën na ko yonent bi jaral na ko ko waaye taxut yàlla def ko ndax bu ko defoon ñu alku ak ak yeneen ak yeneen ak yeneen yeneen yooya bokk na ca yàlla nee ko dañoo bëgg sa borom wàccee malaaka ñu jàkkaarloog moom muy wax ne yàllaa la yónni dañoo bëgg nit ñu deeña seede yàllaa la yónni yàlla ne mën naa ko waaye walaw walaw annana nazzalna ilayhim almalaikata wa kallamahum almawta wa xasharna alayhim kulla shay'in qubala ma kaanu li yuminu illa yasa allahu walakin aktharuhum yajhaluun anam nga koy seeti ca aaya 109 bañ ko laajee tamit ne ko dañoo bëggoon nga wax sa morom munuñ laa gëm lu dul nga ballal ci suuf si ay ci suuf si maanaam ay mbell ay ay ay ay sawnde yi mën a am ndox wala suñ montagne yi nga soppal ko ay tool yi tàndarma ak i resin nga ballal sa diggante tool ya am ndox wala bi maanaa nga nga nga nga daane asamaan si wàccee ko wala malaakay jàkkaarloo ñun ne yàllaa la yónni ndaw ñu dof moom nga dégg ñu ne ko waqaalu lan nu'mina laka hattaa tufajjira lanaa minal ardi yanbuu'an aw takuuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira anhaara khilaalahaa tafjiiraa aw tusqita as-samaa'a kamaa za'amta 'alaynaa kisafan aw ta'tiya billaahi wal malaa'ikati qabiilaa aw yakuuna laka baytun min zuxrufin aw tarqiya fi samaa'i wala nu'mina li ruqiyaka hatta tunzila alaynaa kitaaban naqra'uhu bu ca yàlla teg qul subhaana rabbi hal kuntu illaa basaran rasula kon gis nga ko li ñu doon laaj yonent ci ay miracle wallahi bu lañ ci yonent bi fekkoon rek ñu xal ko te yàlla na xeetu yonent bi bëggu leen xalaga ndoor comme ni mu xalagee woon yeneen xeet ya ko laajee lu laaju wut bañ ko weddee alkande ga ñëw dal ci seen kaw loolu yàlla yéenewut ko xeetu yonantu bi sallallahu moo tax luñ ko laaj ci miracle rek yonantu bi ndax yonantu ci boppam doy na jëmmi miracle soo xam dëgg yàlla kooku doy na miracle kuy wut miracle ba dajee yonantu dëppal kuy wut miracle ba dajee alquran dëppal yéen li ngeen laaj jox naa leen lu ko gën a foox jox naa leen yonent bi jox naa leen alquran lu ngeen di laajati li ngeen bëgg duma leen ci fekk ndax su ma leen ci fekkee ngeen alku kon nag ci tënk waxtaan yu daal yéen jigéen ñi bàyyi leen dem ci sëriñ yi tettaaw bàyyi leen dem seeti gisaane kat yi seetal ma ci sama sëy bi ndax danaa ci am doom yu góoram déet waaye ki seet seetloo bu ko gisee comme mënul koo fànq loo cay seet yow miñ ko gisal mënul koo fànq loo cay seet bu ne la ay la yéen sa sëy bi liñ ciy sonn sonn doom sax doo ko ci am problème dikkal la nga bëgg a seet demal seetal ma maag sama jëkkër ji ku ci njëkk a dee ndax li ma fas ci sama xol yi moo may njëkk dee ba su ma moom sax dama koy wax ne ko ma suul sama jëkkër wala ma suul sama borom kër laay wax waaye doo dégg mu ko ma sama sama borom kër suul ma foo ko teg mu peetaaw xool yëngal daa baa mu xool ci ndox mi mbaa nangam ak nangam mbaa mu xolloo benn xale ci butéel ak ñoo bëri pexe sëriñ yee bëri naa waa ji war fas ma nga sol lu weex mu bëgg laa tuurlu ne ko ne ko mu wàcc julli mu ne dama koy laaj ndax diw mii nangam ak nangam nu mbir mi demee mu ne nee na yëngal na bopp bi de nga jommi fekk du dara lu ci ëpp ay rek kàcc rek nga gëm la loo cay laaj te demoo laaj yi sa farataay ci lu muy jom li foo ko teg nga taxaw fële timit laaj ne ko waaw seetal ma diw feebaram bi ndax dana ci jub waaja xool ne non oh non ci lay dee yow balaa waajaa dee nga dee wala yow liñ ko wax balaa sa dee jot sax boo amul saaf dee seet loo xam ne boo ko gisee doo ko mën a fanq seet loo xam ne kala ku gisal mënu koo fanq man na faa bàyyee ko tegal lay pexe kon daal léegi li ma ci gis demal nga saraxe juróom-ñaari nag yu ñuul nga indil ma ko wala nga saraxe ñetti bëy yu xonq te sarax ba yëpp boo xamul sànq indil ma ko mu ko bu mbaa mu calculé nga ne ko non sëriñ bi xool naa loolu mënu ma koo indi mu ne ah laajte naa mais nangam la war a mën a jaar kon dama nit ma xaalis ba la ca biir yàlla yooyu yëpp matu ko demal rek nga fonk sarax fonk ñaan fonk ñaan lu ci ñu sell ñi fonk jaamu sa borom di ko wéetal fonk nekk ci li la sa borom nekkaloo billahi ku nekk ci war li la wër yëpp maanaam teggi la ku fi baxi li la war yàlla balaag li la wër doo mucc doo muccali kon nag seetal ma nangam seetal ma nangam ji yëpp matu ko seetal ma waajib tukki mi ndax dana yedd waajal dem mu xool nangam ne ko tukki ni du baax de wala nga kay dana baax nga dem la nga xamoon lépp def ko ca ndeketoo xurub baax tukki mu teguwul ci yoon jërul seet tukki daal ma jara seet mooy lépp lu ñuy laaj soo wàccee ci aéroport ba xam nga ko mooy daal am nga passeport bu légal am nga visa bu normal am nga dolis am nga maanaam réservation de hôtel la ca waa aju yëpp ci la war a jël si tamit am nga numéro téléphone am mi ngi ci buntu bi di la xaar nga wane yooyu nag loolu nag moom boo kaseete ku mën nag li ci xaar jar na seet ndax loolu sax leer na ba pare waaye seet yoon woo xam ne dara dafa nekk lu lëndëm dara teguut ci yoon ngay door a seet naan danaa yeggam du ma yegg waaye waaye matu ko ba mu lëndëmee rek la lëndëm bu leen kenn nax bàyyi leen xel ci seen bopp bu baax a baax bëri na koy fanaanoo mu fanaan ci boppam bu xëyee ràbbi ay kàccam boo jéemu ne léegi léegi léegi fekk dara amu ca waaye nag ñëpp yemuñu am na ñu sell ñu baax ñu ragal yàlla ñu jub ñoo xam ne duñ wax luñ xamut luñ la wax rek luñ gis la benn waay ju baax maam Omar Sakho góor ak yàlla bu tedd gële dëkkoon Fass Caaxo dafa dem Serekunda benn waay di ko seetloo ne ko dama bëgg nga listixaaral ma listixaar bi mooy sama soxna si dama cee sonn fay na takk tabaarakallaahu dellu kër baayam may laaj nga seet fanaanul ma ndax dinaa ci mën a ah, dana mën a del ci atam déet mu xool xool ko def listixaaram boo xam ne listixaaru sunniyu la bi yonent bi jàngale ba mu xëyee ne ko ah, bu sa yaakaar tas amaan naa ci yaakaar ndax gis naa lu mel ni boîte or bu ñuy joxe te ñëw ñaareel góor a koy joxe jigéen a koy jël te loolu foo ko gis ñaareel d'accord ci ñoom ñaar la xam naa yaakaar dama dégg si waat ndeysaanam ah suñu àlliw saaxo moo ñu koy nettali di doomam mu ne nag sëriñ ba ne ko waa jëm ko doon def loolu si xaar ne ko sëriñ bi kay man boo ma waxoon loolu boobaa laa cay laa cay teel a génn ndax moom ba muy dem rek la yëkkati boîte or bi ma ko joxoon ne moom laa ko cene woon delloo ma ko mu ne man kay lii laa gis xam ma ne ko ko tamit ko mën a listixaar la te ma gis ne loolu góor a koy gën di joxe bu ko defee jigéen di ko jël su ko defee ak dëppoo tamit ci lay door a man a am mu ne ko waaw jox na ma ko la ko jox moo booba nag la ne man sama dund gi di ci def bàyyi naa listixaar comme daal léeg-léeg da nga gis loo xamut mbaa nga gis loo mënta firi jeexal naa ca ragal yàlla mu doon góor goo xam ne yàlla may na ko moo te doon ba guddi mu gént ñi koy nàndal samsa maanaam kawsar inna a'taynaakal kawsar yonent ba mu gént ba guddi ñu ko koy nàndal dund na ba génn àdduna gannaaw si gi maraatut boo ko joxee ndox daal dana na rus rek nga foone ma ngay naan waaye naanatut dara ba nim génn àdduna te dundaat na gannaaw si gi at yu limoo limoo limoo limu waaye bu mu gisee ne listixaar ay lëndëm lëndëm ma nga ca man ngaa gis loo xam ne doo ko mën a firi man ngaa gis loo xam ne na nga ko yaakaare di ko ko taawi mais demeewut ko te maanaam listixaaram gu mujj gii ci la ko xamee ci la doxee génnatut ca listixaaratut du foo ko waxee rek mu wax la la moom El Hadj Malick waxoon maa bëggoon nga fanaanoo ma mu ne Maodo xuur ko dana fanaan bay mën a fanaanoo kenn kon loolu lu jar a baxi la bu baax a baax a baax yàlla nañu yàlla fayal suñ mag ñeeg suñ sell ga